qul man yarzuqukum mina samaawaati sootu sabay ñu ngi jàngoon démb fi borom bi waxee ni xataa isaa fushi'a an quluubihim qaalu mataa qaala rabbukum qaalu alxaq wa huwa al-aliyyul kabiir fay taxawoon démb léegi nag borom xam-xam yi am ñu ne tiitaange ba ci àdduna fii am ñu déedéet yawmal qiyaamati la moo tax ñu koy baamtuwaat dafa ñu tin ma ci tangem aduna la am ñu ne tin ma ci tangem yomul qiyamati la ndax sootu na bay ci mu wax na ko fa yawma yaqumu yaqomu roo malaaka safa laa yatakallamuna illa man azlu qala sawaban ñu ne ko fu yomul qiyam la kon bu fekkee noonu la amna lu ñu xaf ci wax ja la tanfau safatu عنده يوم القيامة يثبك إلا من أسن ولا أسن ففسع ولو فسع كن يوم القيامة أمي أمين أدنى فيلة يندي بما سنبرم بنمي بنمي مبير day wax yu ci mbir moo xam ne day wax mbir ma mu namm dafa inna laahi taala isa arada an yuxe bi amrin wa takallama bil wax yi boo ko defee rek wax asamaan si juróom-ñaar yëngatu lox ngir ragal bu ko asamaan yi génn nag asamaan yëngatu na ñoom ñëpp ñu root di sujjóot ñëpp di sujjóot ne kay njëkk yëkkati bopp ba nag mooy jibril yàlla wax ak moom yàlla wax ak moom julli nak départ nak yàlla wax ko lim lam yeb mu rom mu rom malaika yi du rom asman yi ñaar asman su mu rom moom jibril gay laaj ko su borom lu wax ma masa qala rabbuna ya jibril mu tontu ne xalal xaq wala kabir kabiru ñoom ñëpp nañu wax jibril wax ñom ñep diko wax ba yegg fa ko borom bi yoni Ibn Abbas moom nee na ci àdduna fii de nee na ngir bu nekk ci arab yi dañoo amoon ay jinni ci jinni yi kay jinni yi bu nekk ci jinni yi dañoo amoon bi ay toogwaay ci asamaan juróom-ñaar ngir bu nekk ci jinni amoon ay toogwaay ci asamaan ñu déglu waxyu bi waxtu boo xam ne waxyu bi wàcc na buñ ko déggee ñoom day mel ni julóoli calala ñu koy déglu ñoom jinni ni mu sottee ko du wàcc ci ñooñ asamaan bu déggee nag ñu dal di nag ñoom ñëpp ñu ko déggee dañuy xam dal tiit xol ya yëpp jàq ñu ni masa xalaat rabbukum daal xaq wa huwa al-aliyyul kabiir moom Ibnu Abbaas moom loolu la wax bu ko defee nag mu ne jinne bi ñu ko déggee dañ ko jël wax wax ko ñuy gisaane ñuy gisaane wax ko nit ñi bi suñu borom yónnee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu toroxal leen dàq leen ayal ci ay dum léegi na arab yi ne am na lu xew am na lu xew ndax jinne yi mënoon amatuñu benn xibaar am na lu xew arab yi bu xaaba ya léegi nag borom gëlëm yi ku nekk rey gëlëm ngir def tour borom nak yi rey nag borom gàtt yi rey gàtt ñu nekk ci nekk ci ab diir di len seen gàtt yi rek di len seen gàtt yi rek ku ñëw saqif ku amon xella mu ñu len yeen nit ñi da ngeen bayyi li ngeen di def bu len yaq seen alal yi bu len yaq seen alal yi yéen waxon ni ci asaman dafa dafa de di waxon ni ki borom ku la jox xalaat na mais koku deewul de xana gisu len biddiw yi jant bi wer wi guddi bëccëg ci asaman deewul bi iblis ne kon nak amna lu xew gannaaw déggatuñ dara te ki asaman deewul amna lu xew kon nak tass len nak limi mu ne xam nga ni ngi def dem len ci gox bu nek ngeen tibb suuf andil ma man iblis gox bu nekk rek tibb len suuf andil ma gay tass dem ci gox bu nekk tibb suuf andi ko ku ñëwoon mu fóon la suuf sa nga yore ku ñëw mu fóon sa suuf sa nga yore ba mu fóonee suuf Makkatal Mukarrama mu ne fii la xew-xew bi amee fii nag na ngeen dangeen da ngeen dégg dara ndek boobu yàlla yónni yónni bi bu la yónni nag ñoom ñëpp ñoo xam ne kon lii mooy indi xibaar bi kon buñ ne nekk ci tànge ba yi ma xiyam la kon bindee yëpp a ko bokk yëpp yëpp nag bu ne kon ci àdduna bi la kon malaayka yi ñoo ko moom ndax li waxee nii aay bi nañu dugal ñëpp nag dugal malaayka yi dugal nit ñi jinne yi ñëpp moo tekk ne kon ci ñëpp la ko yàlla yónni kooku jox rek ci la bokk kon moo nekk noonu moo kon xata isa fusia an qulubihim qaalu mata qaala rabbukum qaalu alxaq wala lil kabir borom bi nii qul waxal ne leen man ana kan mooy ki nga xam ni yarsuqukum mooy ki leen di wërsëgal mu ne sama waate yi ci asamaan juróom-ñaar te mooy wàccee ndox mi wal ardi ak suuf yi mooy soxal gàncax gi kan la bu waxul dara xul na leen allahu yàlla la léegi nag mu ne wa inna nekk ñun jullit ñi aw iyaakum walla yenn yéefar yi kenn ci ñun waxul ñun ñaar ñëpp de aaya bi ñun walla yéen waxuñu waxuñu ñaan ñëpp ndax laa ko dal kenn ci ñun walla yéen mu ngi ci njub aw fi dale wa cànkute muy dën gu leer nañ ndax ñaat safaan duñu dajee ñaar safaan ngeen yéen ci dëgg yéen ci dëgg ah, ah. kenn mën na ci dëgg ñun la wala yéen nag dana leer ñun wala yéen dana leer xamuñu ndax dégg nga wa inna nekk ñun jullit ñi aw yàkum wala yéen noonu islaam yi la alaawu dan am na ku nekk ci njub kenn ci ñun wala yéen aw fii daawal cànkute goo xam ne bi neen bu leer naññi la borom bi ne yeneen bi xul euh, na leen laa tusaloona defu leen laaj ama ajërab naa wali li nga xam ne ñoo ko bàkkaar ñun waaye nag wala nu sal defu laaj ñu ama xamuloo li ngeen di jëf déedéet xul waxal ne yeñ moo dana dajale yeñ moo dana boole bañaa diggante suñu ñun jullit ñi rabbu naa suñu borom danañu boole su ma yetoo mu àttee bañ naa su bi làq ci dëgg nekk ci dëgg dana leer woo mooy àttekat bi alim bi xam la muy àttee xul waxal ne leen aroon nii na ngeen xamal ma allazina gaañ nga xam ni alaqtum añ ngeen bii ci ñooña suraka bokkaale gi ñan la wax leen ñooñu ñan la kàllaa jàjju leen ak jàjju di ngeen fastu dëgg de euh, bali am mooy xaw borom bi daal allahu yàlla al-aziz mooy ku ci nguuram ki alaa kii mooy ko xenañ kii lu mu def lu mu def noonu la du jum di jaawale mu ne leen di sallallahu alayhi wa sallam wa ma arsalnaaka yónni wuñu la illa fatan dalam boole sen ñep ñep gol jigen mag ak ndaw malaka ak doomu ak ma dina sa ñeel nit ñi basiran muy aji bëgg kugam, ci ku gem eh, ci aljana wane seen nga ci koo dafa weddi walakin ak nati way la ëpp ci nit ñi daal mën a xamuñu lolu ñep ci nit ñi xamuñu loolu moo ñu way xolon ñu ngi naan mata kañ la way asal waxtu te moy mbugal mi kañ la in kontum bu ngeen nekkee sadiq ne wax dëgg wax leen ñu kañ la wax leen ñu kañ la bu ko defee nag kafatan bi moom day nekk xaal xaal la ci naasi bi xaal la de dañ ko dañ ko dañ ko jéng moo tax mu jiitu saay baal bi moo tax mu jiitu ko waaye mooy xam moom moom xaal la ci kaaf bi illaa kaafatan ma arsalnaaka ñu ne fu jubal kaaf li illaa kaafatan li naasi dégg am ñu am ne àll ci kax bi ci arsanaake bi bu nu mu gën neex a dégg dégg wax bi léegi nag yonent bi moom kenn la yàlla mosul yónni ci ñëpp amul keneen amul keneen nag léegi yonent bi nag ñu ko yónnee ci nit ñi boobu takkaalif la takkaalif mooy mu kalaf bu boobu dama dama yi nuboo bi ñoom risaala bi takkaalif la jinne yi takkaalif la takaalif la jinne yi ñu ne malaaka yi takaalif lañu déedéet tasrif la tasrif ndax malaaka yi ñoom day nekk ñu nga ca rek duñ lekk duñ naan duñ dem tuwaale duñ tuur ndox day nekk ñu nga ca rek bu dee nag bahaa'ima yi moom nga xam ne amuñ xel kooku moom tasrif la moom xaqan tasrif la kooku tasrif la waaye daal bu dee doomu yi moom ak jinne yi moom amul ci keneenu isaal boobu takaalif la jinne yi dañu nekk mu kalaf def lu baax ñu fay la def leen ñu sa ñu def leneen doomu aadama yi noonu malaayka yi ñoom amuñ loolu kon tasrif la bàyyi may amuñ kon tasrif la kon loolu moo ci nekk waaye ñëpp yi ko yàlla yónni nag ci ñëpp ci ñëpp kenn desul la mu ni ñu ngi naan kañ la defal bi te mooy mbugal ma xul ne leen lëkkum sax na ñaar leen mi aadu yoomin defal bis boo xam ne la tastaqiroona du ngeen retard du ngeen tardé xana wali waxtu du ko du ngeen ko manqué wala tastaqdimoona du ngeen ko romb yi nag saatan matal ko yawmal qiyaamati wa qala wax na mu lasina gaañ nga xam ni kafaroo dañuy lan nu'mina du ñu gëm mukk bees alquraan yi wala billati du caageen li nga xam ni beneen day mu ci kanamam ma ye woon tawraat injil lépp la woon ne dekk am na gëmuñu ko mukk bañ nañ borom bi ne walaw tara boo gisoon yow doomu aadama bi ko mën doon nag di wax ak yonent bi waa tey taw xitaab la boo gisoon yow jullit bi si saali moo nag ba xamee ne woy tooñ la muy woy moo ko foog ñu taxawal lañ ndax bi yim fa borom seen yarjoo ñuy dellante yarjoom ngay delloo bu baaduhum lenn ci ñoom ilaa badin jëm ci ñeneen ña alqawlu wax ñu ngi xuloo muy wax nag allazina gaa ñi nga xam ne utudee foo la tulle foon na leen mu ñu toppoon di lazina sax ñeen ñi nga xam ne yu takk boroo ñoo réeréelu woon mooy ñooñ toppoon naan leen law antum fekkoon du yéen la naa kon nekk nañu moom ñu dafay gëm yéen tax gëmuñu yéen ñu lor gaa yi bañ xaala mu daldi wax mu tontu li si ñi nga xam ni yu takkabaroo dañoo rëy rëylu li si sax ñeen ñi nga xam ne utudee foo lottu loo foo ne mooy ñeñ toppoon di wax ñeleen leen toppoon ana am na ñu ndax ñun sa da naakum ñoo leen wàññi xañul fu daa walit njub gi te mooy topp yeneen bi ba dee is jaakum ko dama bu leen ñëwalee déedéet na mu ceebu ca la dafa neexoon rek ñu ay yéen doon ba li am mooy kuntu nekk ngeen nekkoon ngeen yéen mu di mindi ay kàccoor rek seen bakkan ngeen toppoon topp leen ñu woon kula baa ngi noonu diggante ñu jiitoon ak ñi ñi mu wax waxaala mu wax da si ne gaañ nga xam ni utu leen foo lottuloo foon na leen li la si na sax ñeen ñi nga xam ne istakbaroo ñoo doon rëy rëylu ne ba am mooy lii ngeen def makru layli pexem la pexem guddi la wa naari ak bëccëg kon makrun fi layli wakrun fi naari ndax guddi mënta fexe kooku mooy idaafi fii waxoon nañ ko fi fi layli istamuroo ba nga ñuy a nag fara ñu weddi bilaay ci yàlla bu neexee dañuy def loo ñeel borom bi an daadan ay nawle utal ko bokkaale borom bi astoroon nëbb nañu ñoom ñaar ñëpp ñu jiitoon ak ñu leen toppoon na daa mata réccu ga la maraaw ñu gisee aataaba mbugal ma wa naa def nanu al axlaala gëx ya ceen ya wax naa xil na ci doqi gaa ñi nga xam ne kafaroo dañoo weddi ci biir safara wa borom bi ne xale yu gisaw na deful fay leen nekk illaa ma ndara fa yu la nga xam ni kaanoo nekkoon nañu yaamaloon di ko jëf ci fii lañ jëmbat rek ci keru borom ne lañ jëmbat ci keru rek ñoo ko def mu ne wa ma arsalna moo fi xaritin ci benn dëkk fii xaritin ci benn dëkk bi nasirin benn aji waare benn yonent rek moo tax turam bokk na ci nasir Muhammadu Nasir ci turam yi la bokk nasir mosuma yónni képp ko kenn ko xam ne day xuppee illa xala lu wax na mu mu tarafuha patron ya muy waqewu ya ndax ñom buñ nangoo rek def gannaaw te bëgguñ ñu jitt woon féete leen kanam xam liñ nak leen liñ bañ ñala ku yalla musu yónni ñu neew dool ñu lañ njëkk gëm legi nak ñu am doole ñi nak xalaat nañu buñ buñ heure bi kon gaay yi jiituñu ndax ñu fa ñëk ñu lank ñu lank borom bi ne ñu ngi naan inna naka ñun bima lepp lo xamni rusultum bii yónnee na leen ko ñun daal kaafiroon na weddi nañ ko rek wa qaala ne nañ ñu ndax na ñun nag aksaru ñoo gën a bari am wàllan ci xalal wa awlaadan ak ay doom ñu la ëpp xalal ëpp la te nag li ngeen di wax ni amul wa ma nahnu den ñun bi mu'azzabin nekk ñu ñu mbugal borom bi ne wax leen ne alal ak doom tekkul ngañal de déedéet kon ne leen inna rabbi nekk borom sama yëf ci mooy yaatal lool risqa wërsëg li muy saab ci ku ko soob nattu ko boo xam ne muy def ñu ñàkk borom bee koy def yaqdiru mooy xatal wërsëg ku ko soob xool boo xam ne muy def ñu am di leen koy yéene wala di leen koy añaane waaye li ëpp nit ñi nekk laa la mën a xamuñu loolu borom bi ne alal ak doom taxul dugg àjjana di wa ma amwaalukum nekkul seen alal yi wala awlaadukum caageen seeni doom yi billati yi de xam ne tuqarribukum dana mu jegeñal leen indi naa fi ñun sulfa ak jigéen déedéet déedéet xanaa ku yar sa njaboot gi moo tax illaa waaye kay man ka nga xam ni amana ah, gëm na boromam wa amila te mu jëf saalihan lu baax fu walaay kay ñooñu le lu mu sax na ñeel leen di saawu di fii fay gu ñu yu amilo ci la ñuy jëf borom bi ne waxum ñoom nag aminu dañu nekk way wóolu fu ñu nekk may fi lu xarafaat yi ci saal yi ci àjjana ba nekk fi ñu seen xel dal ñu seen xel dal waaye wala si ne gaa ñi nga xam ne yasaw na ñu ngay dox fi ayatina jéem a yàq suñu alquran ji ak la ko jiitu woon mu aajis yi na dañu jéem a lottaloo walaayek ñooñu daal ñoom mu daroona ñuy teewal lañu laata ba ñu mbugal ma dugg nañu ba pare ne bokkul waxal ne leen inna rabbi nekk borom sama yab surtout mooy yaatal lool risque wërsëg li muy saa ko soob ñu ne bàddi ci jàmmam kon mu ne ne ak ku mën a joxe ku ne ku mën a joxe ku ne dina jox ko doog a mën loo joxe yaqdiru mooy dogal loo ñeel ko ñu ne ku mëna a joxe ku ne la nga joxe yàlla la ko jox dégg ba ma anfaqtum ma anfaqtum lépp lu ngeen dépenser bu ma anfaqtum lepp lu ngeen dépenser mi si in lu mëna doon fo borom bi yuxlifuhu mo koy wutal foofu moom borom bi xayru raasiqiin moo gën ñëpp ñuy wërsëgale dégg ko de te mooy wërsëgale xew raafiqiina xew raafiqiina moo gën ñëpp ñuy wërsëgale xamdan lil muti xayri man yuti bal huwa al muti kulla man yuti jàmm mu ngi noonu na ay alquran ñu sante ko yàlla <laughs> ñu yàlla dëpp na ay alquran ñu sante ko yàlla nee na war na nga yawma ya'zuruhum bis moom leen di pang eh, jamia ngeen de mbooloo su muy mu wax di malaayka ñu malaayka yi ahawlaay ndax gaa ñii yaakum yéen ñii kat kanu la nekk lañ nekkoon yaa bu doon di leen jaamu xaala ñu wax ñoom malaayka ya subhanaka tuji nañ sag sell mukk wante yow borom bi wala yu naa yaay suñu aji méngoo mi doon nim wadit leen jaamuñu woon de ba la amoy kaana nekkoon nañu yabudunal jinna di jaay mu jinne yi te mooy seytaane yee ak suñu lépp ñoom biim ci ñoom jinne ak seytaane yee mu am ñun way gëm nañ leen kon nag fal yawma tey borom da laa yem li ko du moom eh, baadukum leen ci yéen baadukum da badal leen ñeen ñeneen ña ne fan benn njëriñ mooy kenn du mën a ràmm wala dana tàggeen lor te ne kenn du mën a mbugal kenn wan na xool nañ wax sa borom li la sina ñen nga xam li la sina leen asaabal naa saabal naari mbugal mu safara itim mi nga xamne ko tu nekkon ngeen ko bon di weddi bi ci moom bisatula dem jànge na mu ci ñom ayatuna suñu alquran ji ala kawniha bayinatin mu nekk lo xamne dafa leer nañ ñi xala wax nañu sa nekkul ngor si la jul góor ko xamne ne yurdu bëgg na mu yesu du ko len leen kan wu nekkon nañu yàbu du ko jamu abaakum seen mam ya li bëgg moy rek ñew wane jeen ak càng jëleen leen fi tok fi wa xaala wax nañu ni maasa nekkut alquran ji ilaa ifkun la mooy ay nar du dëgg muftaran duñ fente nag dañ ne yàllaa ko wax waxu ko de xala wax na mu si ne kafaroo ñi nga xam dañoo weddi yàlla ilaa xaq ñeel dëgg te mooy alquran la maa jaam wala ñëwalee inaa sa nekkut alquran ji la sirun la mooy ñëbet goo xam ne mu bi ñun bu leer nañ la loolu lañu wax de mhm. nee na wa ma aatinaahum mosuñu leen jox buñ ko bind ci ay téere yoo xam ni yadrusuuna ñu ngi koy jàng wa ma arsalna mosuñu yoon ilayhim ci ñoom la jiitu mi nasirin benn aji waare benn yonent kon nag wax fi ñu ko jëlee kasab weddi na mu allasina ñi nga xam ni ñu xam ñoo leen jiitu woon te ma bala xoo jotuñu woon ñoom waa Makka ñoom yéefar yi mi isaara ma ate naawum fukkeelu la leen joxoon ñoom bu ñu amee dërëm ñu amoon nañ fukk bu amee fifteen sax ñi amoon nañ fukki dërëm baatu baatu miqdaar ak ansuru euh, dañ ci wute ci biir borom xam-xam yi dafa am ñu ne ansuru mooy fukkal bu nekk nga jël benn mooy ansuru miqdaar nag mooy benn ba nga xaajaat ko xaaj mooy miqdaar muy miqdaar kon moo ëpp moo ëpp mooy bi nekk ñoom matul sax miqdaar matuñ miqdaar dégg nga mooy ansuru ansri ansuru ansri dégg nga fukkal ba fukkalam kooku mooy meex saar junne bi nga génnee téeméer mooy ansru téeméer nga génnee fukki dërëm mooy meex saar loolu la waaw loolu la dégg nga moo tax mu ne kon ma uma balaqoo meex saara ma ataynaahum fekk sa boo weddi nañu rusulu mooy yónnent yi fekkee fekkaa nekk lañ nekkee nekk yi sama weddi man sa borom bëggoon naa leen kul na leen nag inna ma ayatukum maa ngi leen di waar bi waaye ditin ci mel ni mbir muy antaqumoo na ya ngeen taxaw yeen ñep lillaay ngir yalla masna ñaar par ñaar furaada kenn par kenn su ma tafakkaroo top ngeen xalaat nak ngeen xamne ma bi saa yokku nekku seen andor bi min jinnatin ci ben ben rab amuko amul rab ku nekk dama dëdd sa nga gënaay xalaat yow kenn wala ol sa xarit ngeen waxtan yeen ñaar xam ngeen ni ki yoru rab xam ngeen tax yeen wa makk yeb mu ngi di denk ndax dafa woor loko ko duko du wécc ngeen dafa yor rab ngeen ko tek tam ngeen amu rab ana ke añaane fa rek moo borom bi in huwa nekkul mom ila nasrun damay aj yu xuppé lakum ñeal len bene ba ne day asaabin ci kanam bugal mo xamni wala jakk bugal moo xam ni shadidil mu tar la ci yawmal qiyaamati xam nañ ne dara kon ne leen yow alayka salatu wa salam ma saaltukum man nag laajuma leen min ajrin ci benn yool foofu moom lépp loo xam ne maa ngi leen koy digal lëkkum sax na ñeel leen in ajriya nekkul sama yool ilaa alallaahi ndara ci yàlla foofu moom borom bi nag ala kulli seen lépp lu mën sey dun aji teewee la xam na ko kul waxal ni ina rabbi borom yax su mooy sànni bilaa xi dëgg ca kaw ba neen mu asab ko mu sànni dëgg ca kaw neen neen ba yàqu mu asab ko xam laa mun xuyoo bi mooy aji xam yi fàddu yëpp kul waxal ne jaa ñëw na mu laaqu dëgg te mooy diine islam ji bu may diwu amul tàmbaliwaay du dooru amul dooruwaay albaatilu neen te mooy kéefar bu yooyu du amul delluwaay kon koy musiba rek kéefar amul delluwaay amul dooruwaay sonn ba dee rek jeex na jeex xul waxal ne in dalaltu ndem dama sànk wala dëgg fi ne ma àddilu dana ma sànk ala naf si sama bopp ndax bàkkaar ba ci mën la jëm bu ñu tadaytu in tadaytu ndem gindeeku naa nekk ku fi maa yuuxii mu nga amee ci la wax yi ne ko rabbi sama borom ilee ci man dégg nga ni mu waxee bu ma réeree man la bu ma gindee ko yàlla la inoo naka moom borom bi samion mooy aji dégg ñaan yi ak wax ji xaribun ku jege la jaamam ñii borom bi ni wala taraa gisoon yow alayhi salaatu wasalaam wala yow jullit bi di façon bañ tiitee ñu ne ah, mu ne nga julli kéemaane maatal ko jaabu law dégg nga wala boo gisoon bañ tiitee nga julli yéeme falaa foo sa jën nag kenn di ci borom bi amut waxtu soo jàppee leen mekaan falaa boo xam ne xaribun bu jegeñ la mooy ku ne bërël rek dekki nuus ci wax ko ca wax ko ku ne bërël rek jàpp ci wax ko min makaanin qariib wa qaala wax nañ ni bu korogee ku dekk ñu jàppati sa wëq wa ñu ne amanaa gëm nañ bii ci yonent bii wala alquran borom bi ne ah yéex na wa anna naka lay nekkee lawum sax ñeel leen te naa wasu jot lu ci àdduna te naa wasu jot lu nekk àllaaxira du ñu wutu ngëm ngëm ci yéex na moo tax am moo tax am moo tax palaat boo xam ne bàyyi bu sore sori sori la waqad kafaroo wéet waqad kafaroo wéet woon nañ bii ci alquran wala ci yonent bi ñu xam ne ci lu jiitu moo ci àdduna fekkoon sax day day noppi maandu waaye muñ ca wa yaxsifuuna ñuy sànni bi la xëy bi ci lu fàddu bi mekkaanin bay ci place bu sori naan dëkk amul hisaab amul wala ñu naan yonent bi njëbeer kat la wala ñu ne alquran njëbeer la wala yonent bi wéykat la lépp wax nañ ko waxi la diggalee fi ne baynahum diggante seen bay na ma yestoona bay na ma diggante nga xam yestoona ñu ngi ko doon bànneexoo jox na mu ñu bëgg a gëmaat te dootuñu gëm borom bi nag kama foy la comme na defee woon ko bi asaayim seen mbooloo ya ca kiifar ga ñu xam lu ci la jiitu ñoom naka ñoom nekkoon nañu fi sakkan ci sikki sàkk goo xam ni muribin dégg na bon tibal borom ci sikki sàkk rek mooy day xiirtal borom ci sikk sàkk ci lañ nekkoon foofu la saa du jeexee surtout saba yi surtout fatir yi la ñu commencé màkk la wàcc moom it ñun fukki aaye la ak lu topp ñi ne juróom benn ñi ne juróom surtout fatir yi borom bi mooy sant boppam di xamle kàttanam xam xamle dooleem wala ne malaayka yi li ñuy mën a mën a jàmm yàlla jaamam du duñu duñu doomam déedéet déedéet mu ni alhamdu mboolu xay cant yi ñeent waxoon nañ ko démb illaahi sax na ñaal yàlla fàttali sama waat yi may aji bind asamay juróom-ñaar wala ardi ak suuf yi mu leen fente amul lu mel nii ñoom rek moo ko man moom rek moo ko man jaalil malaayikati moo def malaayika yi rusul la ñu nekk ay ndaw dañ ko yónent uli añ ñaati ñu nekk borom mbagg mas naa yi am ñaari mbagg wasalaasa ak ñett ñett urbaa ak ñeenti ñeent naa ko def man borom bi yési du fil xalq mooy yokk ci bind nag lu ko neex yokk ba nag mooy lan mooy ñi nekk ñu gudd ñi nekk ñu gàtt ñi nekk ñu xees ñi nekk ñu ñuul ñi rafet bind lool ñi di dox ak ñaar tànk ñi dox ak ñeenti tànk ñi di watatu du ko neex du ko neex ñaar ñaar ñetti ñetti ci ay mbagg xam mbagg ñu xam mooy ñaar mu am na yu am ñetti mbagg ñetti mbagg ñu benn mbagg ni sax ci digg naag gi sax ci digg gannaaw gi yeneen yi xuuf yeneen yi moo tax mu ne kon may sa lu ko soob naka naka borom bi xadiru ajaatan ala ko si lépp lu mëndal yéen bi sallallahu alayhi wasallam dafa am benn bis mu ne jibril da bëgg nga woon ma ñu la yàlla bindee mu ne ko àtt na ko àtt na ko fekk li ko waral mooy dafa gis jibril moom aleyhi salaatu wa salaam ca si dëkk Muntaha mu yor juróom benn téeméeri mbagg dur wurus dur nag naat ca ca ca bopp ba ca bopp ba ak yàquut léegi nag bu loolu amee nag mu ne jibril woon ma woon nañu la yàlla bindee ndax man dama gis yéem na ma

teg benn loxam bi ci dënn ba teg beneen bi ci mbagg ya yénti bi yow ni subhaanallaah maa kuntu araa shay'an min xalqi hakaza la ko wax mosuma gis lenn lu mel ni ci mbindeef yàlla yi mosul am juróom ne ko ah waaw yow man ma am juróom benn mbagg ngi gis moo daanu xam eh, yow de moom xam naa ni daal mu ko ah yow boo gisoon boo gisoon nag Israfil nag Israfil am na fukki junne mbagg ak ñaar fukki junne mbagg ñaar am na ko te menn bagg mu nekk xamun toll fi nga ko xarf menn bagg mu nekk fi nga ko xarf noonu toll gis nga aras moo ko mën ko ci jógee bi la taxaw jógee asafir bi ci la yàlla def xanas xanas mu ne waaye gis nga loolu yi mu yéemi yéemi yenn saa yi moom israfil dana xamu ci ron yàlla ba mel ni picc ndiiti du xamu du toroxlu ba mel ni picc sëriñ ci ron yàlla loolu la Jibril wax wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo tax malaaka yi ñoom xam nañ ne duñ doomu yàlla xam nañ ko xam nañ ko xam nañ ko moo tax borom bi nii nag aaya bi ñu jàng nii nee na lu kenn du kenn mu ci dara mu naan jox kenn du ko tere kenn mu ci dara ni ma yefte yi lépp loo xam ne ubbi na ma ko li naata ñeel li naata li allahu yàlla kay li naata ñeel nit ñi nga xamante ni yërmande wërsëg wi taw bi biir géram gi ñu naa mu ne fa laa mun si ko jël benn xeetu téye daal di ñeel ko indi laa naafee li jin si kenn du ko téye lu mu ubbil suma jaam jox ko kenn mënu ci dara wante bu mayee sukk lu mu téye yi nag fa laa mursi la li benn aji yebal loo ñeel ko mu ne bi mu fa di gannaaw lépp lu mu téye yi nag kenn du ko mën joxe déedéet boobu moom borom bi al aziz mooy aji not ci nguuram alaaki aji xarañ yaa yoon naasu yéen nit ñi waa Makka ci man jamono yooya udkuru fàttaleku leen ni'matallaahi xéwalu yàlla gi aleykum ci yéen mu ne nag fi mu fi leen dëkkal yéen fu wurum bi ngeen dëkk Makkatal Mukarrama kenn du fi dugg mu agresseur mu ne hal min qaaliqin ndax am na benn aji bind da ci yokk min bi xalqu mubtada la da ci yokk min bi hal xaaliqun yokk ci min bi ndax am ngeen benn aji bind dagale nga ne xayrullaahi ku dul yàlla rafaa ko ndax li muy wax ne xaaliqun mu mubtada la woon rek kon xarfu jar bi dem ci yokk kon daga ne xayrullaahi wala nga ne xayrillaahi naka ko ci ba tey xaaliqin bi ndax dañ ko jàpp yartukum dana mu war sa gël leen mi sama ci asamaan fi amut dégg mu ne yettuku boobu nag du du xabar bi du xabaru xaaliqun bi xam mubtada la ñoom dañuy wax ne mubtada bu ko ittifaam jiitoo xabar bi nekk mu daaroo moo tax mu xam ne kokki ne la xadir lëkkum xadir lëkkum ah na fa nettalee lëkkum ne wala ardi ak suuf si di amul kenn ku ko def ku dul yàlla laa ilaaha déet benn yàlla ilaaha ku dul moom fa fa ko naka la wàññeef leen bu ngeen weddi way ñu ko si bokka ndem weddi noonu ñu la faqad ku si yu defoon na ku si rusulun ay ndaw yu mu xam ne la jiitu woon mu def ko nekk la xam nga lu muy tekki ñu bëgg rëy martaba te bëri lool tax def nekk la rusulun rusulun ñu bëri lool te am martaba lool ci yàlla daf ko def ko nekk la dégg nga tankiru taksir wa taasim te bala ñaar yëpp taasim wa tanki dégg nga wa taksir ne watul de leen delloo al umuru mbir yi ila laay bi jëm ci yàlla yaa ayyuhan naasu ay yéen nit ñi inna wa'dallaahi naka dëxalu bi te mooy dekki xaqun dëgg la de falaa taxurrannakum bu mu leen wuruj xale yaa dundaa dundaa dina bii mu leen nax ngir bañ a gëm yàlla wala yaxurrannakum bu mu leen wuruj bilaa ci yàlla alxaruur bu jàkkoon mooy seytaane indi seytaane nekk seytaane kat addu dafa nekk noonu lekkum ñeel leen fa tax soo ña ngi ko jàkk mu nekk noonu inama yi doxoo dana mu woo xis boo mbooloom ma li yëkkoonoo ngir nañu bokk mi asaabi seen ci ñu safara alisina borom bi ne gaa ñi nga xam ni kafaroo dañuy weddi loolu sax na ñaan leen ata mbugal moo xam ne shadiidun mu taratar la wala si ne gaañ nga xam ne amu na gëm nañ seen borom wa amiloo te ñuy jëf asalihaat yi lu baax mi farata ak naafila loolu sax na ñeexee leen maxfiratun ñu jéggal waa jur pay koo xam ne kabiru gu mag la te mooy dugg ci aljana ay bi ñëw dafa wàcc aboo jahalin da wàccoon ak ñu mel ni moom ñoom la ñoom la wàccoon ñoom la wàccoon am ñu dem wàcc ci yahood yi aboo jëriñ ci la wàccoon ñu ne ci yahud la wàccoon ak nasaraan yi borom bi ne afa man na ndax ku taara leef na rafetaleef na loolu tax ñeel ko su yi jëfam ju ñaaw ja faraaw mu gis ko xasan mu nekk la rafet ndax kooku dina mel ni ku melu noonu déedéet fi ndaa naka borom bi yu dullu mooy sànq muy sànq ko soob mu sànq la wéy di mooy gindi mu yàgg ko soob ak gindim fa tasaba bu mu dem bu mu dem naf su sa bakkan mukk nag sa bakkan bu mu dem xëy ci ñoom bu ñu la xalak xasalaatin ngir ak njàqare aa ñu laa naka borom bi alimu aji xam ne bi maa yes noonu la jëf sañ bokk lañ gëmuñu rek bu mu tax nga jàq ba ak sa bopp wallaahu lazi yàlla mooy ki nga xam ni arsala yebal na riyaax ngelaw yi fu toujours mu jeqi moom ngelaw saaban aw niir fu soxnaawu ñu màng ko kon andi na iltifaat andi takkalum boo ci xayba daf ne arsala wax arsala ku fi nekku la soxnaawu la ñu màng ko ñun waxul fasaaxawu illaa ba liñ ji ñu dëkk boo xam ni may tin bu bekkoor la faxee naa ñu dundal bi ca ndox ma al adda suuf sa ba da mawtiyaa gën a bekkooram ga kasaalika nekk noonu lay demee nag suuf dekk ga ci ñu dégg dégg dégg nu lay demee de borom bi ne man kaana ko nekk na yu du bëgg alxasata tedd nga fa di laaj sax na ñeel yàlla tedd alxasatu tedd nga alxasatu tedd nga jëmeen lépp na borom bi ne ko bëgg tedd nga du wuti feneen perte nga yindi moo wax ne képp koo xam ne yaa ngi wuti tedd nga ci keneen si borom xoddee la na ko mel mu xoddee na ko ko mel xam ko nu mel mata bi xadis bu nak la mu bu ko wuti teraanga ji keneen rombu yalla yalla hodde la melu melu melu wanu meluwaanu melu melukaan ko nga jëm bu ko la kooku melukaanam moy lot and lu mënut and lu xamul han ah? nga ne yow mooy si mooy si yàlla ala nga sa bop da la wat kon mu ne kon tedd nga nang ko wuti ci yalla deng wala mu ne ko yaakaar ne yaa yor tedd nga nang sa bop am ñu ko déggee noonu ku yaakaar ne yaa yor tedd nga nang sa bop tedd nga yalla ko yoree dégg nga ñu ne kon yasadu dana yëkkateku dana yëkkateku ak kalimu tayibu wax ju rafet ju sell ja muy baatu laa ilaha illallahu mu jëm ilay yi ca moom waaye nag wal amalu jëf ju baax yas wa mu ko yëkkati laa ilaha illallahu ne patt wal amalu saalih mu ne seen gaa ñi nga xam ne yam ko na ñu ngay fexe ak sa yaat yi ay ñaawteef ñu ko fexe yonent bi ñu jësalloo sax nañ ñaan leen asaabun shadiidun mbugal mu tara tara tar bu ma ko ulaayika pexem gaa ñooy de boobu moom yëbbooru moo xala ko pexe moo xala ko wallaahu xalaqakum yàlla moo leen bind min turaabin daal mu tukkee ci suuf su mu nu fatin topp toqen toq mën ni su ma jaanale ko donc mu def leen ngi nekk aswaajan ay xeet ay peer góor jigéen ne wa maa taxmilu du ëmb min unsan ci benn benn jigéen bu laa sa doom di sippam moom mooy du am doom ilaa benn mi ma ci xamee moom borom bi borom bi na wa maa yu amaru képp koo xam dundaleef na ko yu mu amarin ci ku ñuy dundal déggal de wa maa yu amaru deful dundal mu amarin ci képp ku ñuy dundal mooy du yokk dundam wala ñu xasu deful gotti min amri dundam ba illaa fi kitaabin dara mu ngi téere boo xam ne muy lay ma foofu dem ci law yi moo insa lekk nek loolu na yasiru lu allah ci yàlla legi nak loolu muy deme firi bu day waar wa man yu'ammar min muhammadin wala yaqut min umrihi la fi kitabin mu nexa deg moy buram bi dafa yor ñaari ñaari ñaari list ñaari list list bi ñu def ci ne diou sàngam dana am nangami fan aduna bi am nangami semaine ci aduna bi am nangami weer am nangami hat moy ben list bi benn benn ñu jël ko teg fële fan bu dem ñu bind fële fan bu dem ñu bind fële semaine dem na ñu bind fee weer dem na ñu bind fee at dem na ñu bind fee mooy walaan xam nga noo koy déggee ki dem bank ah leb fa 4 dem banque def 4 millions la def ci banque ba mu neex a dégg léegi ñu ne ko 4 millions yi yow di ngay dimbale nga fay ko ci ñeenti at ñeenti at xam nga bind nañ bind nañ kay jox ko muy bu këram ko def ko fay ñeenti at defe naa 4 millions bëgg na dafay ñeenti at weeru nekk 50 millions weeru nekk léegi nag weeru nekk boo demee joxe 50 mille ñu jël bind ci beneen kay ba kay ba yore ah mais yow bi ñu 4 millions yaa ngi nii ma nekk noonu <laughs> léegi. weer woo demee rek 4 millions yi manqué na 50 mille kon dundu baa ngi dem dundu baa ngi dem dund baa bu ñetti at di pare 4 millions yi jeex tàkk nga xam ne bon 4 millions yi fekkoon jëmm la ndoxam jeex na ci kaw suuf lekkam jeex na ci dem rek jeex na <laughs> loolu loolu la borom kon lépp lu manqué ci dundu Aadama mu ngi ci téere ba dara nag njëkk juddu lañ bind diw sàngam dina am juróom-ñaari at dina am juróom-ñeenti at dina am téeméeri at bis bu nekk nag ñu wàññi ñu bind ba mu jeex moo tax kon mu ne uma yu amaru min mu amarin laa fi dégg nga wala uma uma wala yi laa fi kii moom bëgg jaxase li kii julli xaa dama tax ah ah waaw kay ah xanaa kii dafa xiif jant bi soo gudd de jëru julli jant bi soo gudd takkusaan jotagul ni indi sax nag loolu yësul lu yombaale laaj ci yàlla omaya taw yi bi ne euh, du xemoo ñaari géej yi haata gi asbun aji neex la furaatun lool ni gi dafa neex lool nag waaye saa yaqun aji neex a la saraboo naanam ga waaye saa gi milun dafa sacc dafa xoromu u jaay nekk bu sacc mu ne wa min kullin kum ci ñoom ñaar nag min kullin lu garaam la jàngale tàkkaloo na da ngeen ci lek la man yap yendu lapp yàpp wata boor yàpp wata boor moo tax ñu ne kon ku do lek yap lek jeen te ñu nga parce que man bi ci nam ci sara mamadiya ku génne na jenam. lek yap lek jeen te ñu nga dang ko faa parce que bi na mu ci yap yap na wala xal wala jeen lañ ci nam alquran du mu ne kon ngeen di ci baam xorom ba tan ay tabasoo naa ngeen di ko doon nag kon géej gu neex gi gu ak gu naqadi gi mooy génnee takkaay ya moo génnee jën yi waxtu boo xamee ne moo tax boo xoolee fii ndar waxtu bu ne bi ñëwee ndox mi neex jën manqué waxtu bu ñu géej ndox mi neex na ndox géej jën manqué la wataraal fulka da nga gis gaal yi fii ca biir géej ya mu waa xira ñuy xotti li tab taxoo ngir na ngeen ngeen sàkku ba jëlee ci ngëneelam yi moom borom bi wala alakum ndax kuy tëkku la ngeen sant yàlla yooyu ju leele mooy tàbbal guddi fi naara ji bëccëg bi wala ju naara muy tàbbal bëccëg fi leele ci guddi gi bu saxala sam tàgg moo tàgg jant bi wala xamar ak weer bi ku dul ñoom ñaari ji dafay daw li ajili musaman jëm ci dig boo xam ne bu ñu tudd la borom bi saalikum seen kooku le àllaa mooy yàlla rabbukum mooy seen borom loolu sax ñëw ko amul gi wa diinu ak ak wala si ne kay gaañ nga xam ne nga jàmm min dooni ku dul yàlla ñooñ day mayam di ko na du ñu moom min xit miirin toll ni xit miir duñ ko moom jàmm du daal la duñ ko moom toll ni xit miir xit miir dafa am xit miir am fattiir am naqiir ci tàndarma xit miir fattiir naqiir yëpp nag ci tàndarma la nekk fattiil mooy wëñ ci nekk ci saal bi wëñ si ci saal bi mooy fattiil dégg nga xitmiir mooy neftu weex si li ñu koy xoddee lu weex loolu mooy xitmiir naqiir mooy cas si mooy naqiir yooyu moo ci nekk dégg nga yooyu moo nekk ci tàndarma ji xidmiir fatir naqiir ñu ci gën a siiw na beneen waaye moo ci gën a siiw moo tax borom bi nii subhaanahu wa taala amuñu toll noonu au moins yëpp ko doon min xidmiirin duñ te sax in ta doon ndem nga xam nga woo ngeen leen di leen ñaan laata moo duñu dégg doon akum seen ñaan yi seen woote yee wala sax bu ñu déggoon sax ma tajaabu lakum li nuyu sax teew yowmal qiyaamati yi bisu taxawaay ba ñoom yi yegg furoon dinañ weddi bi si gum seen bokkaale ga dañuy dañuy weddi dañuy bañ yowmal qiyaam dañuy bañ de dañ ko weddi te walaa yu walaa yu ne bokka du la xamal nag sa mbir daara yi àddina àllaaxira mii mi lu xabirin ku mel ni borom bi mëkk sadaqallaahu al-aziim wa rasuulul kariim